ñëwal ma ci euh, Sénégal. Mhm. est-ce que nekk fi mannequin yomb na. non non c'est parce que fii li ñu man mannequin mooy caga ngeen baal ma si terme bi <laughs> ngeen baal ma si mot bi ma utiliser. parce que boo ne mannequin ñu ne la taxawaalukat la. lu dëgg mhm. yéen ñëpp xam ngeen li may wax mhm. mannequin bi ni ñu koy xoolee mooy kat la farantu dëkk seen appartement di tuux di naan image bi ñu am ci mannequinat Sénégal c'est autre chose mais donc c'est pas facile mais lan moo waral ñu jox leen image boobu est-ce que amul ñu ne ci biir di yàq milieu bi ah mais loo gis loo gis am na loo xam ne da koy yàq c'est-à-dire que tey jii saako pombiteer bu benn bi yàqoo day yàq li si des yëpp du dëgg mais nag euh, ku nekk sa gis-gis. mais su benn bi yaaxoo. xis ah. des daw génn du leen mën a yàq. waaw loolu mais man li ma jaaxal mooy benn bi day yàqu yi ci biir xam ne bii yàqu nañu ñu bàyyi ko fa ci biir. ah mais yaakaar naa lépp rek si si si gëm-gëm la ak éducation de base yaakaar naa foofu lay jugee parce que nit ki boo xamee yow yaay kan xam fi nga jugee di nga jom a def yenn yi bañ la ciy joxañ parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ. Mhm. man ki naa euh, rarement ngay gis ku si am 30 ans et plus donc tu es appelé à être mère de famille. Mhm donc yaakaar naa sàmm sa der dafa baax. Mhm. ah man de man moom vraiment euh, man ki naa Sénégal métti na trop wax fa dëgg yàlla. trop trop si déggin bi ci gisin bi c'est pas facile.